man sama xel dafa dem ba jaxaso xamu woon ndax yaayu Belgique bi moo ko woo di ko influencé xamu ndax cousinam cousinam bi nekk université 30 ans musul liggéey parce que kooku su may wootee su may woo xale bi des fois day toog di déglu benn jour dama kaa jàpp ma ne ko terewuma la bu ma lay wax ak yow téléphone nit di toog naan la waxal lii bul wax lii laaj ko lii bul laaj yi mais toujours est-il xale bi bu mu ñibbee dafa changé kii bi mu ko envoyé cent mille yi mu ko envoyé yu mu ko jox da kaa te jox naa ko valeur u marchandise six cent mille francs jëlal ko taxi vingt mille xaw ma pour mu dem pour mu ñibbi mais man sama liggéey bi ma liggéey 2023 yëpp yaakaar ne xale bi normal xale bi nag ma woo ko téléphone mu ne ma damaa jàpp damaa jàpp la ma ci tegal musuma ñeme limay nek fi fii amérique musuma ko wo téléphone mu nan ma dama japp ñeme ko xalaat xalam xalaatu ko sax mais ma ñëw dakar mu ne ma dama japp mané ko nañu tassi samedi mu ne ma du ñëw samedi parce que seen kër dafa am ngénte billahi barke rasul dañu bëgg xaalis dañu tiit dañoo baadoo la baadoo la te yàlla xam na ne xale bi 3 millions de francs budget laa ko defaloon parce que man 500000 rek laa ko jox dama ne ko woon boo ñëwee dama lay ubbil compte bancaire am na muy damay ubbi compte bancaire sax defal la ci li ma la deseel yëpp ma defal la ko parce que man ma ne ko man bugguma sa famille bii ñu lekk la ba nga jeex man li ma bëgg mooy su may ñëwee ma ubbil la compte bancaire kenn du ko xam yow li ma lay jox maag yow. au lieu nga nekk fi di def ay xew di yàq sa yaay ji naan da nga war a xew ay 2 millions 3 millions bàyyil ma tijji la compte bancaire dugal la sa xaalis yow de temps en temps nga dem di récupérer di di di di di sinon bu ma ñëwee ñu naan la ay 3 millions ak 5 millions laaj ko lii laaj ko laa parce que 2020 xale nga ak petit petit daal après dañ yow dañ lay lekk mais xale bi bëgguma déglu elle préfère mu dem déglu famille xaw ma nag famille am lan lañ ko wax wala moom ñu ne kii amul xaalis. parce que ku la jox valeur 600000 jox la 100000 francs ñu ne kii daal amul xaalis kii dalay tàddal ma ne ko yaa ñàkk wërsëg billaay yaa ñàkk wërsëg man 3 millions laa defoon budget billahi wallahi taalahi léegi nii rek ama may taal laay bi dem naa sama compte bancaire di xool billahi wallahi taalahi dama xool sama compte bancaire ma ne heure bii lii waru moon dese parce que man bu ma defee sama budget 10 millions laa dépensé sama yoon bi ëpp na ko sax man maa wax 10 millions rek pour arrondir ci 2 mois entre jënd billet jënd billet euh, New York hôtel New York 400000 3 jours billet bi rek maa ngi ko jëndee 800000 New York li mu fa dépensé bëriwul New York bu mu fay dépensé ba dépensé peut-être 2 millions laa fa dépensé Sénégal tuur naa fa lu mat 8 millions te xale bi sama yoon bi ñaata laa la la la jot xaalis ci man benn 100000 laa ko jox. yone wat ko dépense xawma parce que temps wax ji mu commencé beuri ma bëgg ko calmer pour calmer ko ma yone ko ben 180000 muy 280000 ak ben 50000 yu mako may 280 cent quatre plus cinquante deux rek la laal 330 cent la laal sama yoon bi soxna jang laal <laughs> soxna jang dama ka joxo joxo joxo joxo ba ba ba mu tiit ba cousine mi sax nan ko lu tax ngay jënd ay cheveux soxna dama kaa joxo jox xale bi amul wërsëg gis nga gis nga boo tiitee gis nga meeru kooba yi nekk ci ci ci ci nekk Belgique bu dee moom ma influencé te moom yëg na ko nee naa leen bi daf may seetaan maire bi daf may seetaan may wax ak boo demee mu may seetaan parce que gars yi monsieur Cheikh moo nelaw xale bi moo ma wax ci boppam yaayam daf ko woo ne ko yow dama bëgg bul ma fenn da nga dem ci Mister cheikh <laughs> ay way senegal senegal yéen a bon sa jab sa doom di sey bu demul ci Mister cheikh fan lay dem Mister cheikh moy jëkëram bu demul ci Mister cheikh fan lay da nga bëgg mu dem ci tuba bi meru koba wala soit sa doom moy fenn bu dee nak dafa fenn nga xam tiktok yi mom moy lolou te man gëmuma ne xale bi dafa nee sama yaay moo ma mu ne ma menacé ma yow da ngaa dem ci monsieur Cheikh bul ma nëbb est-ce que da dem ci monsieur Cheikh mu ne ko waaw te moo gën a xam ne damaa dem ci monsieur Cheikh parce que fan sama yoon bi aéroport sama cakas gin gin bi ko gis wala leen Mister Shake nu muy duggee biir Sénégal cakas gin gin cakas cakas gin gin wala leen Mollah Morgun nu muy duggee biir Sénégal cakas gin gin ñoom Mollah duggaguñu de Ousmane Tounkara duggagul de kay foofu ngi ni nee na bu duggee mandat dara mu ngi koy xaar man Mister Shake ca kas gin gin la def billahi barke rasulallah maire bi gis ma wo dom ji ne ko ndax da nga dem ci Mister Shake dom ji ne ko waaw xamna mu sagati ndeyam parce que man mënu ma comprendre la xalé bi 2023 yépp mu normal ma ñew Sénégal xalé bi gënal ma jikko ju doy waatoo xam man Mister cheikh samay vacances sax mënoon na yàqu parce que déception rawul nga am sa jabar mu jël si la aéroport ngeen war a dund lu neex xale bi nga woo ko ne ko ñëwal mu ne la duma ñëw parce que suñu kër dafa am ngénte duma ma fi bàyyi sama tante ak ni ma ko waxee ak ton bi réew nag <laughs> Birman TikTok yi xale bi réewa réew gis nga réewa ne bi mu doon wane 2020 naan may ma baat moom la multiplier par cent man dafa mel ne ki ma doon waxal extraterrestre la billahi wallahi tallahi jigéen a lëndëm yow bonjour dadi yi yow sa bonjour dadi yi sa vidéo yi sa maquillage ah xale bu góor bi kaay ci li waxuma la kële laa wax kaay ci lii ah rëg rëg rëg da ndaat saay yow sa ndaat saay yi nga daan def yëpp te moom bu lay defal vidéo ay trois la lay defal quatre ci jour bi jël temps solo nekkate sa sa saa yegg sa ana ana banaaya xaw ma ana banaaya la tudd xaw ma awa banaaya sa ndey njaay banaaya yi nekkate yooyu sa bonjour dari yëpp ay naxe mbay la xale bi ma woo ko téléphone mu ni ma ñëw ma damaa jàpp Mister Shake dama jàpp man daal damaa jàpp yow ah amoo dara loo may jox lu dul cent mille francs patati patata wax wax wax <laughs> ma ne ko pourtant boo ñëwaatoon après 300000 laa lay jox laa la bëggoon jox muy muy ba pare cot day xale yi Ibou Niang Ibou Niang nekkate ndaat saayam yeeg soxna jaa njëkk soxna jaa njëkk a wóor nekkate xale bi ndaat saay bonjour dañ yëpp ay naxambaay xale bi ne ma ne ma daal yow 100000 francs rek nga ma yónni ba pare may wax mu yónni ma benn TikTok ñu wane benn moodu moodu nekk ci hôtel ak jabaram kii ak jabar ji jël jabar ji dafa jël jabar ji te Moussa Diallo yóbbu ko oto jabar fekk ci moom ndaw kontaan di ko baatare ay billets di ko tuur xaalis xale bi envoyé ma ne ko ah yow lii nga bëgg danga bëggoon man ba jël ay million jox la ko <laughs> bëgge baaxul bu bu normal loon 3 millions laa koy jox billahi dinaa dépensé ci moom 3 millions mu yónnee ma xale yi mu yónnee ma vidéo TikTok TikTok la mu yónnee benn moodu moodu benn xalpulaar di sotti jabar ji ay 5000 ak yaa tiit yow sa jëkkër ngi doog a ñëw Amérique defagul sax 3 jours 4 jours jox la 100000 jox la valeur wu 600000 euh, euh, euh, doo toog. bamu mu dollar yi doo toog bama ma retiré yi ma retirer sama bop yi ma yone sama bop do tok ba ma ba jël riyaa yi ma yone sama bop ma jox la nga ne ma bo ñëwee suñu kër dañ lay dakk mané ko ay la la nga bëgg yow né nga buma ma seen kër dañ may dakk lool nga mo xon 2022 bo démé xalé bi li yëpp moom moko ko mané mané mani manigancé kii nee na am seen aw bu baax dégg ki na ma da nga am seen aw ba ay bu eh, bul bul bu ko dindi waaye tammi wax dara nekk ci Martin Touré li mu wax dara nekk da ngeen am seen aw bu baax bàyyi ko fi naan da ngeen si <laughs> wut bu ko dindi li mu wax dara Mati Mati Touré xale bi baax na de xale bi baax na yaay ji yaay ji moo ko yàq famille am ñoo ko yàq parce que famille bi dañ ko adopté du seen doom dañ ko adopté xale la buñ ko bàyyi woon mu sëy rek mais xam naa dafa dem air dafa ñibbisi indaale cent mille francs yaakaar na li mu yor baax na gaa yi xas ko burus, rus dafa rus ba mu rusee nag au lieu moom mu déglu ma mu dem déglu famille am mu may envoyé vidéo TikTok di wane benn xalpulaar xalpulaar bi di di di baatare jabar ji parce que fekk na ci moom ndaw ma ne ko yow xamoo ndax ay phobie la wala xamuloo waa ndax milliardaire wala milliardaire waaye yow du façon yow da ngaa toogagul sax ba ñu defal la loolu kon yow waroo waroo comparer sa bopp ak kii parce que kële kat jëkkër dafa kontaan ci moom. mais yow sa jëkkër est-ce que kontaan na ci yow mais est-ce que ça après xam lu ma ci tegal may ma baat billahi barki rasulullahi ma ne ko may baat yow da ngaa fàtte 2020 lii nga ma defoon man duma la may baat yow bu la neefee nga dem non je te jure trahison bu ma ba gisee sama laay mu tuddee ko trahison gars yi lii bu dul trahison lan mooy trahison yow 2023 dañ la jox dépense chaque deux semaines ñu envoyer la chaque deux semaines 2023 bi yépp la 2023 bo démé sax 2022 la commencé di yok dépense di ko yok ah envoyer la jënd la xaru tabaski xar bu reuy nga dem jënd and ak sa ndigaay mu dem jënd xar tabaski nga feebar fi nga feebar sa bëñ yaqku nga yag am bëñ bu la sonal sa tante ji nekk Belgique jéemu ci def am nga beneen tante bu nekk Belgique te ñooñu nee nga ñooñu lu ne lañ may wax nee nga ñooñu dañ maa bañ xale bi anda ma koy wax de nee nañu yow lu ngay ak ñaari tante yëpp la wax nag tante bi sax sama xarit la woon moom tamit mais dégg naa dafa mujj dem ba ah lu tax ngay ànd ak kii yorul xaalis kii nga xam ne euh, du nit patati patata pourtant ba nga amee sa bëñ mu sonnal la ñoom du kenn moo yëkkati benn cinquante mille ne la dama dindi sa bëñ balaa sa sa gémmiñ gi commencé xasaw wala sa mu am inspection nga dem ba sa gémmiñ bi def nii wala mu moy man mi Mister Shake dama ko wax ma yëkkati cent cinquante mille xaw ma deux cent mille ci saa si ma yónnee la yaa ne ma loolu moo koy faj deux cent mille nga ma xaw ma xamatuma ñu toog tuuti xale bi ne ma non non dafa demaat ci docteur bi docteur bi nekk non non il faut que cent vingt cinq mille xaw ma ma yokkaat ba mayaat ko sax vingt cinq mille en tout cas li dess mu egg 250 cent cinquante trois cent mille bi dem ñu defat bañ ni ba mu nice li lay wone famille bi dañoo tiit wax ko dem sama life? yow da nga feebar ma yone la cent cinquante pour nga defar sa bañ nga demaat ci docteur bi nga ne lolu doyul luma prévoir loolu nga waxat ma ma yokatal la cent et quelques do fa yam su suba si. xale bi bran yónnee ma benn vidéo mu nekk ci biir clinique bi mais ñu branché ko solol ko ay raakool xale bi mel ne day waaj a dee lu tax parce que dañu bëgg ma yónneewaatal leen yónneewaatal leen xaalis xam naa dañ ne ko ah yow sa bëñ day metti rek mu yónnee la cent cinquante mille xaw ma deux cent mille nga ne waat non monsieur Cheikh doyul bu yónnee waat la beneen cent mille ah kon yow boo demee hôpital kii un million la yónni xaaral ñu yobul hôpital kay jugal jugal jugal yo kay dañuy yóbbu clinique dem ci clinique ba dem ci docteur bi ne ko docteur ki dal xam nga luñu bëgg solol ko ay rapport dañu bëgg jëkke ji gis ne dafa feebar parce que jëkke ji mom bu xamé ne dafa feebar rek da koy yónnee xaliss xalé bi dal man mais gaay loolu la moo la moo ko gën yow nga nekk immigré di liggéey ci bato son dafa melni tay rek ñu yónnee soxna Diagne ne ma soxna Diagne mi ngi urgence mais sa àddina day tukki xalé bi dañ ko solol drimel dañ ko solol rapport ci bakkeni nopi je ne peux pas parler je suis malade ma mais tout ma xam pas ma ne euh, ne pas man maa ngi jox dépense chaque deux semaines maa ngi leen di jox dépense imprévu feebar ma faj nga ne ma doyul ma fajal léegi nga bëgg ma di ma envoyé ay vidéo ñu ñu ñu branché xale bi mel ne ku ku nekk comment xam ngeen malade yi nga xam ne machine yi ñoo leen di ñooy tax ñuy noyyi loolu la ma jox ma ne ñii ay baadoolo dëgg lañu ñii xaalis lañ ma toppee xale bi ci laa ko zappe ne ko yow da nga naa yàpp mu ne ma non non ñoom ñoo ma wax demal hôpital <coughs> man sama man sax feebaru ma woon tax bu feebar bi may wax feebar ma feebar bi may wax ñoom daal ñoo ne ma il faut nga jóg rek il faut nga dem hôpital ma ne ko yéen ay dof ngeen ma teg ay dof ngeen ma teg gat du ma la ko dof dañ ko war dañ ko boose raakool ba man pour man kii kii c'est fini et puis yow boo feebaree sax loo may envoyé loolu yow kay bind ma benn texte ma nga ne ma euh, maa ngi ci clinique bi mu ne non non dama xam ne bu mu la ko waxee doo ma gëm moo tax ma ne xaaral ma envoyé la patati patata mais toujours est-il que 2023 bi xale bi cocc la def cocc ma ñëw 2024 mu tar suma aéroport ñibbi seen kër ma koy woo mu naan ma damaa jàpp loolu la ma njëkk a tagal damaa jàpp ma ne ko yow. woowaat ko samedi dañu tassé mu ma suñu kër dafa am gétti ñu togaat wax ji commencé bëri wax ma ko yow danga maa yab xam la la mu ci ma ci tegal may ma sama baat may ma sama baat ma ko c'est pas la première fois nga may ñaan baat parce que waxon nga mako 2020 2020 ba légui yaa may ñaan baat yow xam nga ne duma la may baat wax ji commencé bëri cool euh mané non sama vacances do ñu ko yak ci saa si mu ne ma yaay ji ñëw na yaay ji fàqe Belgique monsieur Cheikh ñëw na rek une semaine yaay ji fàqe Belgique ñëw pour fekkee ma ne xoolal lii rek yow doo toog sa Belgique nga liggéey sa liggéey monsieur Cheikh ñëw na yow da nga yaakaar ne dama nopp sa doom nopp boo xam ne ah damay ñëw jox ko xaalis yow il faut que nga am ci xaalis bi wala boog da ngaa ñëw pour kattan nday sëy bi comme ni nga ko waxee woon mais sëy bi boo kattee nday sëy bi kan moo koy yëg kan moo koy yëg man Mister Shake dama am victoire ci yow parce que da nga ma may sa doom 2020 nga 2021 2020 nga ma ko may fin 2020 nga ma may sa doom début 2021 début 2021 nga ne da ngay tas nday sëy bi même pas 6 mois yaay ji man dama am ndam ci yow parce que sa doom dégluwu la parce que defaloo ko dara ba nga ne ko bàyyil monsieur Cheikh mu bàyyi monsieur Cheikh defaloo ko dara dafa sonn xale bi wan na ma ay vidéo xale bi dépérir kenn xamul lu muy ndurool nga abandonné ko xale bi nee na toog na 3 mois woowoo ko téléphone nan ngay amee sa doom parce que dafa envoyé say audio waaw say audio la ma envoyé ba ngay wax damay kattan day sëy bi ak sa jëkkër ji defalu la dara gis nga yàlla xool rek lay fay. yàlla xool rek lay fay maire boobu mi ngi Belgique mi ngi may dégg Belgique la nekk mi ngi tabax këram foofu Sénégal waaye jëkkër ji moo koy lekk moom moom li mu li mu ma doon def li mu bëgg a def ci man loolu ko yàlla fayee yàlla da koo nattoo benn jëkkër joo xam ne man doom ji moo ma envoyé audio loolu la meree doom ji nag doom ji moo ma envoyé audio muy wax jëkkër ji mu ne paa boobu defalul ko daara daara daara moom mooy jël xaalisam di ko jox loolu la meree doom bi mu mu zappe ko trois mois yàlla mooy fay ay xol yow li nga bëgg ñuy def moodu moodu yi moom la la yàlla teg indi la jëkkër joo xam ne dërëm amu ko nga dem sa doom di xultu sa doom jël ojo yi envoyé comme sachet bu leen ma taxa wax yàlla xol rek lay fay man su ma doon nit ku bon damay fase sa doom sa doom ba mu ne may ma bac 2020 dama koy fase mais dama xam ne loolu baaxul xale bu ndaw doogu sëy même pas six nga ne ko fase naa ko loolu réputation bu bon la ci moom ci quartier bi mu ne kenn dootu ko takk wala ci lay jóge commencé mbaraan moo tax ma ne man li ci sama devoir dinaa ko def sama devoir waaw mooy xale bi dinaa ko toppatoo dinaa ko yar dinaa ko wan ne boo sëyee rek da ngay am boo sëyul yàqule xale bi loolu laa ko jàngal dama ko jàngal da war a mel ni soxna soxna jaay dafa sëy am bu seuyul ñàqale ba fi may wax ak yéen soxna bu deful lu mu wara def man la ko def wala bopam dem ba fi la ko wax bu dugg sama live soxna Jaay bu dugg sama live di am lu may expliquer man ma nek kilifa nek jeukaram di liggey ba sama loxo ba ngi ni xol le moom motax may liggey de man bu doon man billahi wallahi taala ma ngi senegal bato bi terem bugumako fi billahi wallahi taalahi bato bi bato bi aljana la de hal bu wax tal ngay fay waye liggéey bi dafa metti 7 jours sur 7 nga koy liggéey c'est vrai que ñolay jox ngay lek ñolay def ngay nan waye bu doon mr cheikh kesse ñibina senegal Sénégal pour sama néeg fenn Malika million yi ma jotone liggéey ma ma ma ma ma ma géré ko parce que aw ma dara man waaye soxna sëy bu ma sëy sëy bu sëy bu rafet bu ma sëy la yore sama doom moo tax ma nekk ci bato bi di liggéey <coughs> mais yaay ji yaay ji Mister Shake ñëw na lan ngay def Sénégal doo toog ba sa heure ñëw ñëw yow yow tabaski nga daan ñëw man le 11 avril laa ñëw avant le 17 avril côté yooyu yaay ji xale bi woo ma ne ma sama yaay ñëw na dañuy ñëw HLM man ne ko ñëwal mooy ñooy HLM bi nga xam ne lépp dëgg la man youtubeur boo ñëwee HLM live mi ngi lay xaar maa ngi fii HLM maa gën a siiw HLM boo ñëwee fii rek marché HLM seen côté yooyu nga ñëw Mister Shake laay laaj fan la fan la tudd fan la dëkk gars yi dañu lay indi sama kër boo ñëwee sama kër looy wax Mister Shake daf maa fase c'est pas vrai Mister Shake fase wala de yow ne may ma baat Mister check cent mille francs rek la ma jox ak 600000 valeur marchandise loolu ngay wax boo ko waxee sax nit ñi naan la waa léegi après xëy na monsieur Cheikh loolu la am te yow yow yow da ngaa yaay da ngaa yàkkamti yow nit ki ngi ñëw pour def Sénégal un mois 15 jours 3 jours nga commencé déconné di laaj xaalis koo xam ne 2020 la la takk ba léegi musul a gis mais Sénégal il faut ñu defaraat jikko yi. xale bi dafa yàqal boppam instant yi dof na léegi boo ñu toogaatee mu bindaat ma mais ma baat la ma wax de mais ma baat mais ma baat ñu toogaat monsieur Cheikh baal ma xam nga rek xelu xale bi moo nekkoon ci man ay daddi yaay sama xarit commencé di message fekk na boobu man pare naa ci moom pare naa ci moom parce que papa gis nga jigéen da ngay da ngay yaru nit da ngay am gis nga tamit mënoo fi nekk nekk xale ñu lay yar 2020 ba 2024 ma lay muñal di ko coog sa yaay di ko sa yaay di ko sa famille di def ci yow ma expliqué la teg la ci yoon ne la lii boo ko defee man maa sa jëkkër dinaa la dugal ci yoon nii du sa famille dañ laa adopté sa yaay jii nekk Belgique tubaab la lay may tubaab tubaab la lay may boo dof dof dofloo dina la jël yóbbu la Belgique boole la ak màggetu tubaab màggetu tubaab la lay may parce que mère boobu genre mère boobu la chrétien tubaab nan ngay jëlee sa doom di ko may tubaab gars yi nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg atte ma ak mère boobu atte ma ak mère boobu yéen ñii toog fii yéen ñii toog fii nekk vrai sénégalais kan mooy jël doomam di ko may tubaab d'accord naa bu nekkee jigéen nga yow jigéen nga bu la neexee nga dem ba nekk mag nga dem sëy ak tubaab loolu kooku am ngeen ci droit comme Gabriel kan lu mu def am nga ci droit bu la neexee yow jigéen nga majeur nga nga jël sa bopp nga dem Europe peut-être da ngaa bëgg kayit wala genre mati trois pommes yooyu yaa xam wala ñoom euh, euh, France mata danso bu la neexee xëy na jamono moo metti bëgg nga këyit bëgg nga lii nga dem dugg ci tubaab loolu am na sénégalais yu ko ñeme mais man man mii dina jël sama dom diko may màggetu tubab ak tubab nu mu numu nu mu yéefaree tubaab nu ñu saltee du ñu sangu waxtuma la nak màgget parce que màggetu tubab rek ñoy tak euh, xalé yi ndaw ah. ya? Atelen mag mer bobu man may Mister cheikh xexu xeexu du jeex duma tuddu tudd turam nag dama koy suturaal waye limu def ñaaw na man daf ma wara remercier parce que man dama ñewon pour téye domam parce que xalé bobu mën na yakku instant bi fi fi ni bu normal la ton ma jël ko billahi wallahi tallahi fase wu mako dé de fase wu mako dé ba fi may wax ak yéen nii topone may ma bat may ma bat depuis 2020 xalé bu may wax may ma bat depuis 2020 mané ko man duma def lu ñaaw lu mel non duma ko def bu normal lon xalé bi bu ma leeroon na normal la dama koy récupérer mais lim ma wax ci vacances yi teg si message yi ma yónnee wax ju ñaaw yi ma wax xalé bi man dama ne li mënu nek ci aduna ko xamne 2023 ya ko yor ko jox ko dépense musul tardé wala bo jume ben yon ñaar yon nga nga faté liggéey bi bëri nga faté mu ne la message yeeg da nga jum nga yónnee ko dépense ci mu febar nga fajj xalé bi musna tok ben jour mardi jot ma yónnee ko dépense mu wara a yenen deux mardi mais mardi bi ci top mu ne ma Mister Shake ana dépense man ko yow xana da nga dox yow maa ngi la yoni semaine passée nga may laajaat dépense mu ne ma no xale bi commencé di ma client ah, di ma sax saxé di ma baraj baragé comme sama papa ma di ma baraj baragé na Mister Shake yow nak yaa ngi bëgg na nax ha ah, yow Mister Shake ah yow dépense bi ah yow semaine passée yow no de semaine balé nga di ma jéem a triandé ma ne ko booy man Ria laa laa nekk laa lay yónnee te Ria dafa am historique même bu dul Ria man naaxuma nag ba ngay jéem lekk sama xaalis ma wax mu insiste mu ne ma envoyé mu dama mer ba toog de un mois yónnee ko dara ci la normalaat yar leen seen doom yi yar leen seen doom yi xale boobu li ngeen ko li li ngeen ko def. lii nga ko def nii ah bu yàqoo bu leen wax na Mister Shake moo ko yàq de parce que tamit man mënu ma fi nekk di di di di jéem a jubbanti nit 2020 ba 2024 ba mu yàqal ma sama sëy ak soxna Diagne du ma ko def parce que soxna jigéen bu baax la moo tax sama yoon bi un million cent cinquante mille yu wax tàll laa jël teg ko ci loxo soxna yoon bi ba may ñibbisi ba may ñibbisi ba mu desee deux jours jours pour ma ñibbisi un million cent cinquante mille laa teg te xoolal def naa Sénégal un mois un mois quinze jours bëreet soxna euh, dépense trois cent mille am toogaat deux jours damaa soxla cent mille am toogaat trois jours ah monsieur euh, euh, trente mille am toogaat monsieur dama war a jënd cheveux am deux cent mille billaahi un mois yëpp damay joxe rek ah suñu kër dama war a jox dépense ah jo ñaata ah, ah, waaw tuuti waaye ma sonal yow jox naa la dépense non non mister yow tamit yaay sama waay yaay sama dadi ah yow tamit ah 3 jours 50 mille non du la jox toogaat xam na soxna dafa xam fu fan laa may jaar instant may wax ak yéen mu may topp topp télévision sànq laa gis message te génn naa ko budget budget 1 million 150 mille yoo xam ne télévision ci la bokkoon mais gis nga démb yónnee barki démb yónnee ak quatre vingt mille tey mu ngi may télévision un mois yëpp noonu la ma soxna toppe mais daf ko mérité daf ko liggéey te su xalaatee ne xale bi waroon naa ko jox 3 millions <laughs> mu lu ba dem soxla lu mu laaj dama ko di ko jox di ko jox di ko jox soxna dama ko joxo joxo joxo joxo jox des fois dama koy moom sax day rus may laaj bu rus ma ne ko sa xaalis la de mu ne ma jox ma dama war a jënd suba dama ko jox li ma koy jox ba pare ba yaakaar ne pare naa mu ne ma léegi il faut nga ma jënd chef wax a wax wax deux jours ma tëye sama ma ma bañ rek troisième jour ma dem ria ma ria ko deux cent mille nekkete soxna cheveux bi mu jënd ëpp na deux cent mille di dem man daal dama toog rek cousinam bi woo ko soxna ne def ko haut maa ngi toog de yàlla moo lay weer soxna xamul sax ne haut-parleur la ko def cousine bi naan ko waaye yow yow lu tax nga jënd cheveux bu cher bi sa yaay lii ah yow sa yaay condition yi ngeen nekk di jéem a wax ma ne ko yow ma ne ko yow yow sa yoon dafa nekk ci ci ci ci man maa ngi toog di déglu message bu mel ni damay gént soxna naan ko waaye yow kan moo la wax ne damaa jënd cheveux man fii déjà cheveux bi fi ma ko jëndee dama ne woon waa ji ndaw si bu ko wax kenn parce que lii laa doon bañ yow ku la wax ne damaa jënd cheveux boobu ne ko mais yow non c'est-à-dire cheveux boobu mais damaa kaa jënd parce que lii ak laa commencé expliquer man maa ngi toog dégg ma ne ko may ma ko soxna ba mu coupé ma ne ko mii yow dèjà man damaa mer dèjà maa meroon parce que soxna dafa ne moon deux cent mille waaye yàlla moo ko weer ci biir cheveux bi ci biir téléphone bi ma dégg prix bi soxna ba mu paree ma ne ko mais yow yow da nga demoon cheveux bi 200 millions nekk nekkati yow cheveux bii ngay jël xam nga dama waroon mer mais meratuma ma ne ko waaye yow mais sa cousine bii moom lan moo ci yoonam lan moo ci yoonu nga jënd sa cheveux moom mu fàqee fële di la lu tax nga jënd cheveux bi jënd cheveux ba ko yaa tey sama jëkkër Amérique la nekk yaa tey jëndal li ma meroon soxna dama ko amuj sax fàtte mu naan ko sa yaay lii sa yaay fi mu nekk ci biir kër gi te xamul ne man instant boobu soxna utal naa ko appartement soxna buggul sax ma wax ko waaye dama koy wax fii soxna mu ngi ci appartement yaay mi ngi foofu ba leen di wax dangeen ngeen di wax li nga xam ne seen yoon ci lay nekk nit ku dem ba am yenn âge yi am jëkkëram yow yaa koy woo di ko wax da nga war a Sénégal lan moo tax sénégalais mënul dugg ci lu yoonam nekk yen ni bokay def même bu dee baax sax amna lu mi muy dañu dañuy da nga soxor da nga soxoré nit ki da nga iñane soxna jaañ ku koy iñane di nga dé du san morom soxna jaañ du san morom parce que jimu ji mu am jeker ji mu am mo gëna yewon sen seen jëkkër ji mu am bugul dara dara dara soxna mi ngi ci appartement 180000 la ko utal appartement 180000 ñaan da ngay sa bokk bu yalla defé mënatuma ko fay mu wat sen kër buruk buruxlu loloy aduna aduna du ay affaireu gemmu même bu dé ben fan soxna dund nako 540000 la génné caution outol ko appartement sama papa bima djou dima di wax loolu soxna jaay mi ngi ni ah boobu ba léegi soxna mi ngi ni nek sa kër famille ah yaay soxna nek ci kër yow yaangi ni amulo amuloo kër di sama papa di ma xas Sénégal dama leen di wax sama experience merci ba yow ja yow comprendre ñi nga bokk sa papa bi la jur sax dalay khas dañu tite tiit bëgg xaalis jital aduna sama papa 102 ans le dernier doom que pa yëpp dé nañu momu dess mom mi ngi tok bu fu mu tok day lijeenti affaireu xaalis nga na fi nek di wax sama ñaareel ak yaayam ju bon bi ba pare bàyyi sama papa ak samay cousin sama papa bi ma jur <laughs> maa ko gën fuuf sama papa adduna mi yëpp da kaa julli man man kañ laa bàyyi julli yàgg naa xaw ma ñaata laa bàyyi julli sama papa 102 ans le dernier de Moïka paa yëpp a dee ci mu kon paa yëpp a dee moom mu ne du dee man maa ko ñaanal maa ne ko yow yàlla nga dund 120 mu ne ma amin <laughs> affaire xaalis dépense yi te mu lay jéem a pression sama papa da lay jéem tek pression way ah ah ki def na li ki def na lele ki def na la ko ne ko papa man ma tek pression de mënoo ma tek pression sa sa méthode yoy sa méthode yu njëkk yi nga daan def man na nek nga di yok rek chaque année may yok dépense 50000 la laa jóge fexe ko 75 quinze ko 100 125 150 200 225 275, 250 275 pendant 20 ans may yokk chaque année paa bi di ma xutba dépense mooy jaamu yàlla bi gën a rëy mooy ngay joxe dépense waaw waaw del joxe dépense rek yow yaay soutien de famille Yalla moko def yaay soutien de famille yalla do ko rëccu de sans del joxe dépense man man da ngaaka bi dof bi may yok rek di jox 20 ans may joxe dépense ba egg 300000 2016 ma ñibbisi ma nak dootuma joxe 300000 léegi 75000 la joxe parce que nekatuma Amérique sama papa nak dé dok fi défé dima xass xas de 300000 à 75000 da nga délu ginaaw tu marches à reculons amulo fo dëkk amo keur patati patata yaay soxna jaañ ngi ni nek seen biir keur Grand Dakar patati soxna jaañ te xamul le man ma ngi yone soxna jaañ 500000 francs par mois soxna bu amul appartement du ci man maa ko yone yónnee 500000 par mois pour mu dimbali famille yëpp bu bëggoon appartement day jël deux cent mu dem ut appartement mais soxna soutien de famille la ñu ne dañ may xas mané ko papa soxna bi ngay xas suba amna rendez-vous ak mom pour appartement sam papa mu ne ma abo ah mané ne ko waaw ñu may xas sam papa dima ma xas man ma nek soutien de famille ba pare nefati sam papa weddi ne musuma joxe dépense Sénégal ci kër ga <laughs> xul de dem fi la nek do sam papa dafa nax eh la ilaha illallah sam papa limuy fatelu ko man sax fatelu ma khalis mo len dañu bëgg khalis sam papa da fay gëna mag magget di gëna a bëgg xaalis barke Rasulaay di ma tek pression mané ko jeex na ah yaani ne amatuma keur wa ah, léegi dama yew alhamdullilah bang ko waxe dotuma deureum dotuma ko fi joxe soxna jagn mi ngeen di lijeenti xana ma dee xana ma dee wala ma ñak liggéey soxna nee la 1 mois 15 jours chaque 2 jours ma jox ko xaalis dessul ba ba may ñibbi ba ñi ñibbu yalla def yalla limuy def rek non yalla du nit yalla du nit daa jël soxna soxna demul sax du jema ut appartement soxna dama la ko demul ut appartement man du ci nek di wër ay appartement de man dama ñëw vacances du ci nek di wër appartement demal nga utal sa bop mais soxna dafa fiir buggul sax génn néeg bi HLM bi dem na day ut parce que moom mi ngi calculé ne bu ma génnee te ma ñaareel beeg yooyu wala ma dem ci ñaareel bi soxna dog na ba def trois jours man maa ne nag il faut nga jug trois jours bi ci la ñu jug mag moom dem ma ànd ak moom yàlla def yàlla def ñu dem ci benn appartement xoolal rek yàlla def ba mu desee deux jours yàlla doo ko appartement bi doogo am ma dem rek waa ji xool ma Wadi ji ndaruñu ko jox ma insisté insisté insisté Je man ndaruma sénégalais mais je Amérique Je ma Amérique wax ak mom mu xam du ñu contrat en 5 minutes ma génne 540 000. boum deux mois avant, caution xaw ma commission je sais pas Non la amé appartement ma yëkëti un million yu wax ko am mu dem jënd fauteuil moo xam dafa war a jënd télé moo xam lim ci war a def te bu sooba yàlla fii ak décembre dinaa ko yónnee un million mu jënd euh, lal ak ak ak yu ma xam mais toog di lijjanti soxna amuloo lal amuloo lii amuloo alors que soxna jëkkëram mi ngi koy envoyé cinq cent mille par mois parce que soxna soxna soutien de famille leen seen jëkkër yi lan la leen di jox seen jëkkër yi joxuñu leen dara lépp lu leen jox fan lañ koy est-ce que seen loxo lañ koy teg sax seen goro yi lañ koy seen loxo goro yi lañ koy teg goro yi di ci def lu leen neex soxna nag directement laa ko yónnee soxna ba mu leen rawee day tey soxna huit ans laa ko takk huit ans yi ubbil naa ko cantine mu nekk fa di jaay utal naa ko ñetti taxi am nañu appartement di fay cent vingt cinq mille pendant deux ans maa koy yónnee dépense mais loo soxna dama man sama mission accomplir naa ko ci soxna moo tax ma ciy wax affaire catu c'est trop tard li ma koy defal defal naa ko bu pare. ñu naan ma da ngay catu bopp li ma koy defal man sama jaan wàcc na ci soxna jaan jaan wàcc na utal naa ko appartement jox naa ko xaalis maa ngi koy yónnee dépense sama yéene nag mooy ma utal ko kër mais yàlla bu nee du ma du am kër man mënuma ci dara liggéey bii xaw ma ndax dama koy ñàkk tey wala dama koy ñàkk suba. soxna bu ñu demee ba soxna dafa ma ko wax sax boo demee ba amotoo boo ñëwee ñu ah loolooy jigéen soxna dafa ne ma boo demee ba amatoo boo ñëwee fii Sénégal ñu gérer bu ñu war a nekk ci benn néeg Malika wala Tiwaawan Pël ñu dem fi waaye ñaareel bi lefat ji ma jox ko cent mille mu xeeb ko dem ci famille am ñu yuuxu ko yow dof nga sa jëkkër jóge Amérique amul dara lu mu jox lu dul cent ay waay jii la yaay dof yaay ji fàqe Belgique monsieur Cheikh ñëw na yaay ji fàqe Belgique xale bi moom ko wax de nee na sama yaay ñëw na nee na may menacé ma ne ko ñëwal HLM sa yaay ñëw na ñëwal xale bi nee na daf may menacé sama yaay ñëw na boo ñëwee vidéo laa lay defal live yow xam nga ma bu baax maa ngi nii HLM xale bi di def ay message éphémère xam nga lu message éphémère xaw ma sax luy message éphémère kii moom ma ko wax soxna Bouchra moom la message éphémère moom la moom la déclenché moom la activé mais message éphémère moom la activé ci ci WhatsApp maanaam lépp lu ma la wax ci la ñaaw après day effacé wu xale bi di wax di bind di wax lu ko neex ci man man ma toog teg tekkaaral ne ko xaaral sa dépense rek comme moom xaalis la gëm noonu laa ko naxee. xaar sa dépense xalé bi di xaar deux semaines dépense bi ñewul manako a xaaral rek xaaral ba ba yeneen deux semaines mu tok ana dépense ana dépense manako ya ko doon ñaan baat légui ya nga ni di laaj dépense ma ñu nako ben 50000 non non duma ko jël non dama ko yenné ben 180000 pour pour pour calmer ko parce que temps yooyu mu ngi dof moy moy beureut rek ana dépense wax may ma baat patati manako am 180000 150 la ko nuyoo ne ma ñu nako 180000 pour calmer ko xalé bi nopi mané ko légui da ngay xaar dépense parce que su ko deful da yak sama dépense sama sama vacances chaque jour fay nek di di woté di ki deux semaines jot mu commencé mardi xam mo mardi yar rab man par mardi la koy yone rab mardi lay bañ mu ma envoyer mardi jot mané ko envoyer yow yaa fi doon nag di wax ne euh, même bac légui nga ma envoyer dépense mu commencé nak di effacer vidéo di effacer message message éphémère khadi Diallo man dama xam message éphémère mooy lan ci wasta dañoo capable xale yi dañoo capable capable di ma wax ay affaire localisation ah mën na ko géolocalisation man maa ngi HLM làqatuuma <laughs> nefertiti damaa sadik de man dama lay tàmmal xaalis tàmmal le xale bi mardi fi mu jotee rek fit bi dana rës waaye deux mois ngi nii gis laalu dara mais on a ngay am sa menace menacer di wax ay affaire géolocalisation di def ay menaces menaces subtiles police menace subtile Je ne ko xanaa xamoon ne man américain géolocalisation jam ba par nga TikTok xale ay jongul xam message éphémère xam une géolocalisation suis <laughs> Touré man xale Sénégal xal nañ ma loolu yëpp yaay ji la yaay ji jógee Belgique moo naan ko géolocalisation ma ne ko soxlawul géolocalisation man HLM laa dëkk HLM boo wàccee HLM boo nee Mister Shake ana kër Mister Shake dañ lay indi mu naan ma géolocalisation boo ñëwee xamal ne live mi ngi lay xaar live live laa lay defal ñëwal nga ak si ak si ma yow sa yaay yooyu ñëwal boo ñëwee looy wax. boo ñëwee lay wax Mister Shake daf ma waroon jox sa euh, euh, euh, Mister Shake cent mille la ma jox ak valeur bu six cent mille ci trois jours dama ne ko fase ma mu bañ loolu ngay wax ñëwal boo ñëw di nga xam ne lépp dëgg la billaay barke rasul laay li ñuy wax trahison sama laaj trahison eh gars yi lii épisode 2 la rek de da leen ñëw chaque jour ma leen di gën a wax xale bi man dama dem ba sama xel dafa jaxasoo legui dama bëgg ngeen wax ma yeen yeen xalé bi mo capable wala yaay ji mo koy coacher ak cousine man je ne sais plus parce que nee ma yaay ji ñëw na bo démé bo démé sax yaay ji ñëwul yaay yaa ngi Belgique ñu jo géolocalisation <laughs> xalé bi ngi def ay message éphémère fa la jàngee lool ah nee bo ma boo suñu kër dañ lay dakk est-ce que deug la

2020 ba 2024 ñaari yoon rek la la gis 2020 dama ñëw 2022 dama ñëw nga ne sandijaay Diaye nee na boo bu bu ma ñëwee ci kër daf may dàq loolu nga wax 2024 ma ñëw benn yoon rek lañu gisa yow jëkk nit takk la def ci yow amuloo dara loo koy fayee lu dul may ma baat ak waxu police ak waxu géolocalisation ak sama yaay jóge na Belgique sama yaay ñëw nag di def ay menaces. dafa ñaaw waroon na ñëw waroon na ñëw HLM man HLM laa nekkoon di def live boo ma bëggoon géolocaliser di nga ma géolocaliser yow foo jàngi géolocalisation yow cinquième lycée nga yem xaw ma cinquième lycée waaye bu dee affaire mafia xale yi sa njàngu sorowul de waaye affaire mafia ay affaire géolocalisation mais message éphémère yu mu activé bu ko soxla Bouchra waxee doctorat lañ ci am kii naan ma fase na ko du ma ko fase jamais duma ko fase bu normalaatoon tey ma jël ko man moodu moodu yi laay yee Jules nee na ma <laughs> te féeri déggugu leen dara de leen ñëw chaque jur man ma continuer laaj maa ngi xaar nag ba ngeen génn ne na ngeen may tontu xam nga kenn xamul seen tur kenn xamul seen tur kenn xamul seen fu ngeen dëkk man du ma du fi nekk di wax seen tur du fi nekk di wax seen dëkk mais li ngeen ma def li ngeen ma def ñaaw dafa ñaaw da ngeen ma ndaroon na lekk ba ma ba ma set wicc xale bi dama ko ndaroon ubbil compte nefatiti xale bi dama ndaroon def ci moom 3 millions billahi wallahi wa taalaahi am na benn compte boo xam ne mu ngi amee Sénégal 1 million moo fa nekk 1 million ak quelque loolu 2022 moom laa ko ndaroon jox xaalis boobu dama prévoir woon ne xaalis bi comme xale bi dama ko desal 500 koy takk un million yi dama ko prévoir ne mën na am ma ma jox ko mais dama ñëw laalu ma xaalis boobu ma ñëwaat ren ba may def sama bilan dama ne du façon Sénégal am naa fa yeneen un million ci banque boobu bu ma demee ba ci biir parce que ñaari jabar dafa métti si tabaski lañ nekk man dara jënd ñaari xar ndara jënd ñaari yére ndara joxe dépense pendant un mois 15 jours ndara naa métti ci man ma ne ah nefatiti ma def sama bilan ma ne ah kii de xam naa ne un million yooyu dina dem ci moom xalé bi dama ne ko dama lay tuju compte parce que sa famille dañoo bëgg xaalis dama lay ubbil compte pour yow nga gérer ko sa bop ñom buñ ko sax yépp mais bëggee bi mu bëggee motax 3 millions minimum 3 millions yu ma doon def ci mom sank la tuju sama compte bancaire gis ko fa gis ko fi mané xolal li rek man bamay def sama bilan waroon naa dépenser 13 à 14 millions ci vacances yi mais 10 millions rek la jot a dépenser kon li ci dess bénéfice la ci man. loolu mais nefertiti ma du ma du ma fase du ko fase du ko fase parce que fase dafa ñaaw xale la fase dafa ñaaw xale la bu dee mi ngi seetaan samay live lenn rek la mën a def téye boppam bu dee bëgg na Mister Shake ñu téye boppam un an deux ans sans sans dépense loolu mënu ko mënu ko téye boppam un an deux ans sans vacances su ma ñëwee Dakar man xaw ma kañ laa ñëw Sénégal suma ma Sénégal mom momay lijeenti na lijeenti ba ñëw ci man ma xol ni ki changé na ma jëlat ko mais man mi deureum dootuma mako envoyer envoyé te bi dama ko tamal xaliss dama ko tamal xaliss kon mënul tok mënul tok 1 an dima xaar mënu ko kan moo koy jox yaay yi du ko jox kenn du ko jox day tumaranke li ma koy ñaanal na ah xeyna mo ñaan yalla mo am jëkkër milliardaire comme mom waxna ko ko sax mu ne ma amin ma ne ko yàlla nga am jëkkër milliardaire mu ne ma amin loolu rek loolu rek moo ko mën a moo ko mën a euh, euh, kii ah sauvé ah voilà gars yi kon bàyyi la ma coupé live parce que dama waroon liggéey bi ci di leen wax rek man ñëw pour xas sama jabar la man sama famille dama ciy wax ku ne nag monsieur Cheikh lu tax ngay wax ma ko moom sama jabar la yaay ji amul lu mu mën ma mënu wax fii fii ci YouTube lu tax ma ciy wax parce que ba fu muy wax ak yéen sama femme am naa droit ma wax ci moom sama papa ni ma ko taajee fii wax ko kon xatuma la xale bu ndaw sama cousin démb moom laa taaj fii sama sœur fii laa ko taaj parce que jikko yi nekk Sénégal il faut ñu defar ko baadoo la ngeen tiit ngeen xam nañ ne ñàkk baaxul soxna da koy wax sa jur soxna jaa ñu ngi nii kon affaire yi du question ñàkk soxna Diagne dafa diiñ moo tax lu ne lay am dafa diiñ soxna ñàkk ba mu tax ngay sàcc wala ngay fen wala ngay jéem a lu ko fi jar man nag chaque jour dama naan non Sénégalais yi il faut ma comprendre leen parce que tamit boo nekkee ci yenn niveau de pauvreté yi mais est-ce que loolu tamit war na tax nga nekk ci niveau pauvreté rek war na tax nga commencé di njuuj njaaj di jéem a jaay ay kër comme sama sœur bi li leen wax dem si sama sœur affaire kër ku nekk di xëccoo ay cousin fàqee fële kii daf ma amel xaalis kii amaluma xaalis sama papa mi ma jur di ma wax yenn wax yi di ma xas di ma wax ne amuloo kër yow monsieur Cheikh amoo kër ma ne ko mais aw ma kër waaye denc naa loo xam ne sama compte bancaire mën naa jënd kër de te ba ma waree tabax fii si appartement bi 800000 yaa ma waxoon boo ko fi tabax 2016 hmm? kii nee na ma un dernier ndaat saay <coughs> Ibou Niang merci wax nga dëgg ndaat saay ku yaakaar ne damay nekk fii ñi ma ñëw fii pour jooy wala miss Shake damaa regretter wala sama mes sama mariage échec la comme yaay ji yaakaar dafa tas sëy bi yaay ji nax na boppam billaahi wallaahi caa yaay yaayam bi nekk Belgique bu yaakaar ne mi ngi reetaan di wax way waaw waaw kay mis am naa li mu bëgg Mister Shake xale bi bàyyi na ko xale bi bàyyiwu ma xale bi ba moo may topp 60 message mu ngi fi yoo xam ne man maa ko tijjiwul envoyé na ma 60 message man maa ko tijjiwul di ma baalu naan ma dadi ah ah t'es bonjour t'es là ma ne ko je suis pas là ah, da la ma waxul xaaral ma defal la vidéo xale bu góor bi kaay ci lii waxuma la que ne laay wax kaay ci lii ah rëg rëg rëg rëg dëg dëg daal saay day njaay dikkal xale bi nag dafa mën a fecc nag génération tiktok yi bonjour daddy bonjour daddy chaque jour pendant un eh, an loolu message loolu loolu échec la xale bu ndaw ngay wax ak moom mu naan la daddy di solo ba rafet jël temps ma yow defal la quatre vidéo xale bi bëgg na ma

nekkate bonjour da di ay dóor la man xamutuma man sama xel dafa jaxasoo ci nee na ma elle aime ton yàqu na de yàqu na de yaay ji nag li mu koy wax mooy toppatoo sa doom balaa muy yàqu parce que li ma ko tàmbal xaalis bi mu ko tàmbal démbale woon mardi démba jotul dara toppatoo sa doom fexe ngeen ba mariage am yàqu kon bu leen ko seetaan bu leen ko seetaan yéen tax ba mariage am yàqu bu len ko setan jox len ko xaalis bu len ko meune yóbbu belgi nga yóbbu belgi way bo ko yóbbu belgi bu ko may tubab de bu ko may jëkkër tubab de xale bi neena naa ko bul nangu mukk ñu lay may ay jëkkër tubab tubab bi setuñu tubab bi bon nañu surtout màgget tubab sexe rek lañ lay doy doy wuñ la dara ñu sexe voilà gaay yi la ma couper euh ko len ma rek man temps mom moom live bi moom live bu comme Sonko gañe na Diomaye gañe na amatuñu ñuy wax ci Macky Sall jikko yi la ñuy jéem a defar bu soobee yàlla di ngeen bàyyi Modou Modou mooy dinañ leen yee bàyyi leen xale bu rafet boo leen gis rek takku ko ci internet man Mister Shake regretté wu ma de parce que yàlla moo ne woon lii sama dafay bokk sama destin te xale bi am naa lu ma def ci moom lu bëri loo xam ne bu duloon man heure bi yàqu na waaw bu normaloon nag billaahi wallaahi taalaahi dama koy jëlat parce que xalé bu baax la xalé bu ma bëgg la wayé man nak vraiment mënu ma topp ci nit di jëma défat diko défa di ko defar Dakar mu may xass di bind lu ko neex di ma menacer di wax ay géolocalisation ay police sama yaay jógee na xam nga tamit ah di ma wax jox lima ko jox doyuma di di di di su ne ko ñëwal mu ma ah suñu ko dafa am ngénte dama japp je suis occupé man man man man man loolu amatuma jot bobu quatre ans doy na sëkk te bëgg tabax sama kër nak jaay soxna jaay dama ko bëgg tabaxal kër sha allah amna téré 270 mètres carrés bëgg na suma suma déloto Sénégal caaxaan la bayyi top ci jigéen yi rek di bëgg leen defal lu baax yeen ngeen ñu fay lu bon ay géolocalisation ay police ay sama yaay jóge na Belgique mafia sama di yaay lii laa laa ah sama di yaay xam na policier bi xam na laa lu ne loo ko fi jar nefatidi moom du dajji moom nee ma elle mérite <laughs> voilà baa ngi coupé épisode 3 suba incha allah ñu ko continuer waxtaan bi du soxna si rek la ñuy wax de sama papa ciy wax sama sœur dam ciy wax samay frère dama ciy wax samay cousin dama ciy cousin yi moom bàyyi naa leen parce que aw ma seen jot cousin bi mom bayina ko parce que mom bo fi nekkee di wax day dem HLM la dem monsieur Jean muy nekk fi di wax ci man suñu keur la dem commencé wax man awma jotam kok mom lim ko lim ko yak démb rek defena naa war na ko doy seuk cousin bob mi ngi may setan nak parce que man lima jaxal jaaxal dañ maa teg bët man rek lañu tek teg dañ maa fan ah il faut ñu fan ko ci chek américain tiktok yi top ma ah nan ma bonjour daddy ah ah ah dañ maa fon normal <laughs> soalnya jangan jama noir soxna soxna du mau soalnya lera koyak, rek mana yàq dafa mën a yàq 1 million 150 mille laa ko jox xaw ma fan laa ko dugal à part fauteuil yi mu ci jënd 400 mille li ci des xaw ma fan la ko dundal jotul sax jënd télé di ma di ma wax wax télé waaye nag mérité na ko de du seen morom de waaw saykat la de voilà defante ni yow yaa ngi tardé nga foo nekkoon demal nga seetaan ñi live démb bi ak barki démb live démb bi léegi ay épisode laa ci def suba ma tuddee ko lan live 3 trahison dinaa am na détails yoo xam ne waxuma leen ko il faut que ma yee moodu moodu yi tiktok yii buñ la joxee benn fanu ajjana benn fanu ajjana lañ la jox waaye dinañ la jox cent ans euh, safara boo leen deful ndànk gars yi laaj leen partagé leen ba suba incha allah merci